del déglu del xool Feeling Dakar site lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. ma xarit la di ko ñaanal ndam rek laa koy ñaanal ndam bu seddu guy mu dem si jàmm te ñëwaat si jàmm kooku bu ko yàlla fayee xolam. ndam lu raw ndam sax da koy am. nga ni sa jëkkër la sa xarit la. yow yaay jabaru baabooy waaw ah sit naa lin kon yow da ngaa xam li fi nekk tey bala Gaye war a bëre champion bu mag Bombardier ñu jotoon a bëri daano mu daan ko sa jëkkër jàpp Bombardier daan ko tey baabooy ak bala Gaye du ñaar kenn lan tey boo ñu doon wax tey diggante Balla Gaye ak Bombardier lan ngay wax Balla Gaye daan rek koy jàpp daan jàpp daan jàpp daan baabooy da koy jox kele bi baabooy da da koy jox kele bi bi mu yoroon mooy xëcc tànk rek mu toog daan tey jii tey jii ñoo moome ndam rek. yéen ñi billaahi ñoo moome. Bombardier jàppoon la duma la si da koy daan. nga da koy daan ndam rek. tay ji dañoo pare. foo ko dañoo pare si lépp ndam rek. Balla Gaye ndam ndam xol bi dafa rafet. yàlla da koy defal jàmm day am ndam. yàlla da koy may ndam ndam bu sedd guy. day koo xam ne day dóore. ba ma ba ma jëkkum fi kenn moom. <laughs> dooru kenn. wañaar baaboo yi. wañaar mooy boobu boobu bi mu kenn baaboo dem na deuxième as. baaboo yi yow yow war ngaa yóbbu baaboo yi. ci digg ndëndam la ko daan. war ngaa yóbbu baaboo yi deuxième as bi boobu ci digg ndëndam. dama moo tax dama wax ne la moom bi muy daan baaboo yi boobu boobu safewul. tonton Gara wàññi na yoon. waaw boobu safewul. Ah. waaw bi mu nekkee ci digg ndëndam. la ko baaboo yi daan nee na baaboo yi boobu safewul. boobu boobu safewul bi mu koy daan pare loolu du combat. loolu du combat du combat combat baa nga woon fee mbuur mu fekk ko dëkkam daan ko Thiès ba muy xëcc tànk waaw muy toog waaw boobu baa booy mënoon na lu nekk waaye retour bi de moom retour bi tontoo ganaar boobu yi ma ko jox a bari <laughs> déggal loolu ñu ngi ak jabaru baa booy ndeysaan dégg li mu wax lépp seen naa leen ba tey ñu ngi nii ba tey géejawaay ba tey ñu ngi géejawaay seen naa leen ba tey ñu ngi géejawaay ba tey ñu ngi géejawaay kër Balla Gaye mbana yi fii la fii lañ ko doon tooge fii lañ doon toggee ñii ñoo doon toogal Balla Gaye naa leen ñi doon doon toogal Balla Gaye ñii dañuy juge ba Touba ñii dañuy juge fu nekk ngir Balla Gaye ndax ku nekk ku nekk xam nga ni Balla Gaye doo nga leen ko jaral ñu ngi lay siyaar ku ah, baax. waaw alhamdulilah masna si bisimilah barke sëñ Touba journaliste yi ñoo ngi leen ñoo ngi leen delloo fa yéen it di leen delloo siyaar masta coono ah, leen bokk waaw ne leen def ah tey dañoo am suñu revanche ñu ne xam nga ah, loo ci teg aller la muy match lépp nag. mu ñu ñu defoon yàlla defoon Bombardier yi amoon ñu kaw ndam tey yàlla def na ñoo ngi am ci moom retour ñooy ñaan suñu borom bi nga xam moom may mooy mayee yàlla yàlla ñoo ngi lay ñaan di la tàll loxo yàlla nga nu may ndam tey ci kaw Bombardier ñu daan ko jëlu bu rëy ñu am suñ suñ revanche ci kattanu yàlla. nga doon bëre koo xamante ni mos ngeen a bëre mu musee bëre gis ngeen làmb ja nam demee bu la fa am ko def tey nga war a jël revanche combat revanche ba pare nga koy bëreeg arène nationale tey ma wax loolu lu rëy nag aco bi ñuy bëreeg Bombardier yow ku ne xam ne ñu danoo feebar lu leen dal dafa feebaroon dafa giriboon girib sëñ Tuubaa ba bi mu génn bunt kër yaay man maa noon tuwaan bi da doon wàcc yaay jën ko ay Omar yaay bàyyi ma dem parce que Aziz Ndiaye bëgguma yàq bisam boobu Aziz Ndiaye moo tëggoon combat bi xam nga loo gis rek góor nit bu la bu la fayee teranga fay ko teranga mais Bombardier yow war na leen mënuñu te boo xoolee ah, yàlla rek ah mënuñu de waaw yàlla rek moo xam ah mais nag tey dinañ jël suñu revanche ci kattanu yàlla suñu borom bi incha allah rabbi Bombardier di dóore moo xamante ne ni mu toll macha allah dafa ah. jaaxal mbër mi pour mbër daan ko dóor dàqu noo dóor koo dóor ah ñun ñun dóor bëri na waaw ñun dóor bëri na bëgguma a quoi wax baaxul boo bari day yàq mais ku ne xamee mbër yëpp du mën naa leen combat lan moo ko jik xanaa ñëw taxaw dëggal boppam gëdd Bombardier Bombardier jaxasoo ma jàpp ko daan ko man na loolu laa gis. est Balla loolu. mooy forom ku du ma Yékini ñaari ji la ci benn takkusaan Bombardier war laa mën a jaaxal te Bombardier maa ngi ñëw Bombardier Yékini daan na ko ñetti yoon waaw kon nga xam ne kon Balla daan naan la. yàlla moo duggoon nag ah, def tey de ñu koy maal ko moom te di nga da nga ne ko Baye Fall waxoon na ma ko ci waañ ba da nga ne taal bi sëñ Abdoulaye waxoon na ko. man loolu ñuy wax si Balla Gaye. Balla Gaye li ñu wax ci moom mooy ñu koy conseillé ñoo ngi koy ñaan yàlla na tey def ndànk respecté Bombardier parce que àdduna toujours da ngay respecté nit ba ci liir bi sax sa doom bi nga jur da nga koy respecté boo ko joxee cër rek yàlla ñëw jox la cër bu rëy rëy waaw loolu nag de question dara nag ci Balla waaw Balla moom ñëpp la jox cër mais lamb moo mel noonu boo ñëwee wax si xadar waañ bi li ñu ci wax mooy sant yàlla rek ceeb bi tel naa pare ñu ngi pare ay boori euh, midi mère Kumba mooy togg ak ami wi moom moom moom kër gi après nga dem foofu ak ñoom teel na noo pare chaque làmb ñun yàlla fi ñu dimbali ñu a pare waaye nag foo leen di jóge ah ñun man maa ngi jóge Njaareem kër gu mag waaw man waa Njaareem laa mais nag tëngeej laa doose quoi waaw Balla Gaye daal moom indi ak ak ak bokk ma bokk ak sëñ Touba ak moom ma di waa waa meddu lenn nag wax dëgg yàlla ak sama xarit Asin Ndiaye waaw waaw waaw maane waaw ami ñu ngi nii mère amee ngee maane maane mère amee ngee mère ami moo nekk si kër gi ziar naa la moo leen di yaatal nakay tey sama xarit bi borom Gambia people borom kaw borom géejawaay borom waaw mi ngi nii mère ami non añ leen si la bokk ñun instant yi xam nga rek waaw waaw ñuy wax ni ba tey maane mën na noo avancer ñëw fii del déglu del xool Feeling Dakar site lay jox information yu leer Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar